woppi coronavirus dugg na Sénégal. coronavirus gi ñu doon karaka garaka gor téere ji na Touba. di leen nuyu di nuyu téléspectateurs yi mu nekk cas bu urgent benn sénégalais bu jógee Italie le 6 mars moom la ñu daal di hospitalisé fële ca Touba depuis le 9. ci dëkk bu sell ba ca Touba jamono ji ñuy waxee kon moom waa jooju ñu ngi ko interne ci maladie infectieuse ak tropicale bu hôpital fan bu Ndakaaru. feebar bi mu ngi si Touba feebar baa ngi fii dëgg la ñëw na fi ñu ngi Touba ñu ngi au centre de santé de Darou Manane. lépp loo xam ne dana jàppale dana jàppale ñi war a liggéey si bañ mën a def seen liggéey sëriñ bi neen nañ leen jàppale ci loolu. cas yi njëkk am au début la les directives étaient que malade yëpp ñu dem au niveau de l'hôpital Fann mais bi ñu demee gis na cas bi indi na yeneen cas ce n'était plus la peine ñu leen di. kii donc on a dañu mujj jël centre de santé Daaru Manaan bi nga xam ne moom moo moo moo dépisté woon kaa bi foofu lañ def léegi centre de prise en charge. dugg na ci réew mi. ñaa xam ne ne yaa ngi ñaan sax ñu dolli ci ñaan ndax euh, yàlla def ci jàmm ba Sénégal mën cee euh, mucc kenn bañ cee loru ndax jàngoro la yoo xam ne ji ni muy wàllee dafa xaw a doy waar ndax jàngoro bu fekkee dafa mën a nekk ci nit. fukki fan ak ñeent ba ñaar fukki fan yow mi nga xam ne mi ngi ci sa yaram xamuloo ko te période boobu mu nekk ci sa yaram mën naa wàll keneen kon waaw donc loolu moo tax il faut nit ñi xam ko euh, xam li nga xam ne lii moom lay bañ moo tax euh, ñu profité it ci wax ji wax ko mu président ne en tout cas ñu ñaan ci ndax euh, sénégalais yi mën na jël seen matuwaay. ñu ngi jël yëpp suñu matuwaay nag waaye du tere ñu sàkku ci ñaan sàkku ci également seen kàddu. pour que ñëpp kenn ku ci nekk xam nañ ci war a mën a comporter ba mbir mi du law. feebar bi xamul docteur xamul ministre xamul président xamul maanaam kenn jomb ko mën na dal si ku ne te mën na la dalee nu nekk ndax ki ngay toogal mu lay wàll peut-être sax doo xam ne ku ku yor feebar bi la. lii nag moo tax may wëlbatikuwaat nag si kilifa diine yi di leen lancer appel mooy di leen ñaan.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 xew-xew yëpp kenn talatu ko ñëpp ci lii lañ jëm euh, mbas wax nañ day jur bekkoor ci biirum réew loolu nag dogalu suñ borom la waaye li ci war doomu aadama ci gerte na ko nag war na ko def ndax du ya li wolof di wax ay du yam ci bopp borom ku jàpp ne da nga ci mucc itam yàlla mën naa def ci dogalam mu agsi ci yow xam ne jàngoro ji jombur kenn kenn koo xam ne mën ngaa garanti sa bopp ne da nga ci mucc itam amut yàlla képp ci man musal it kon nañ dellu ci yàlla tuubal ko sàkk sarax jéggoo te dimbalante suñ biir loolu mooy ndénkaane sëriñ bi. ngi woo population bi yëpp population bi yëpp góor jigéen mag ndaw ñu respecté itam euh, li nga xam ne moom la waa kër docteur di wax ci wàllu euh, cetum loxo ci wàllu. Euh,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 nañuy faral di wattandiku di joxe loxo lu bari te boo dendeek nit muy sëqat sëqat su la jaaxal fexeel nga dànd ko lu war a tolloog benn meetar du caagénne da nga koy daw waaye loolu sàmm sa bopp la dañu leen a bëgg xamal coronavirus bu la jàppee nu mu lay def ak lan nga yéeg ci saw yaram ngir mën a jokkoo kër docteur xool ba xam coronavirus la wala déet boo yëgee ne saw yaram mu ngi tàng lool ngay saqat mboow lool foo tollu di ànd ak coono ci ñenn ñi ay mitit yu mitti di jàpp seenu yaram seeni bàkkan di mel luy xelli ñuy am buli guy xasan ak biir buy daw gaaw leen gaaw ngeen jog ko kër docteur boo nekkee ci mbooloo mbaa ci sa kër dend ak sa njaboot di li mbaa ngay saqat xamoo lu ko waral del faral di jëfandikoo musuwaar wala morso bu diis boo amul lu ñu sa conc nga teg ko ci sa kanam ndax lor yu ndaw yooyu di génn mën naa indi ay gàllankoor ba boo amee doomu jàngoro bi nga wàll ko keneen jigéen ñi ci kër gi tey togg ñu fexe lépp lu ñuy togg te mu bàyyi ko ci mala nu raxas ko raxasin wu set ànd ak ordu sawel te it ñu koy togg na nañu fexe mu ñor ndax coronavirus virus bi ci boppam ci mala la bàyyi ko muy yàpp mbaa jën mbaaw nen fexe leen mu ñor xomm ndax loraange mën naa ne fu ne boo amee lu la jaaxal ci sa yaram wooteel ci numéro bu dul fay dara di 800 00 50 50 wala SAMU national ci quinze 15